Assalamualaikum, guys, aku udah Barry senegal guys gars yi maa dellu si taxaw seetlu si tolluwaay réew mi ah gars yi wax sama xalaat wax sama gis-gis comme ni ko di defee gars yi si tolluwaay réew mi di leen wax ne vidéo bii tey dañuy am taxaw seetlu si président de la république bi biir Russie si Poutine di la wax ne la yow di la poser question ne la boo jàkkaarloo woon ak Poutine tey loo koy laaj loo koy wax si problème loo koy wax ban problème nga fa yóbbu yow ñu jàngat si problème mu Macky Sall bi li mu fa ñu wax si suñ xalaat wax ne ñun buñ demoon jàkkaarloo Poutine lan la wax vidéo bi tey du yomb gaay di wax ne toppal vidéo ba mu jeex ndax dinañ waxaat tamit dina leen andilaat benn activiste Samba ak ñaar ñaar leen andil duñ leen wax nag kan la suspense lay doon buñ fa jogee nag ñu wax coalition Yewwi biñ téye wax sunu xalaat kon vidéo bi noonu lañ koy defe buñ duggee kër ga toog rek dinañ si tàmbale gars yi parce que mbedd bi lañ nekk di wax di explication dafa laaj benn genre maanaam dafa laaj concentration lii début rek pour ñu wax leen ne leen li ñuy tàmbali vidéo bi pour ngeen xaar ñu ñu ngi dugg ni kër ga su me ko tok jakar lo caméra bi wax ak yeen nak ci li fi jotta xew kon Amadou Baro Sénégal la bo abonné gul ñu ngi lay wax nga bëss bouton bu xonk bi gis nga boko bëssé nga abonné bo la wal ci cloche bi bu ko défé vidéo buñ duggal nga bok ci ñu ko jëk jot après générique bi nak ñu tambalé vidéo yi jaa jëf gaay